من مادئ القرآن جزاك كنيو فمن سميو ديباوان كما سيد جسيمان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزرنا علما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal ci suñu bi ñuy def ak yéen ci seetlu alquran bu ñëw gisee suñu borom subhanahu wa taala mu wax nit ki ne na ko ñaan mu dim teg ko boole ko ci ñu defal ñi nga xam ne defal na leen xéewal ba teg leen ci yoon wu jub wa dafa daal di soog a wax ginnaaw bi ne yoonu ñi nga xam ne kon da ngay xam yoon wu jub wi ba noppi képp ku ci nekk nga def ko sab àndandoo mais doo xam ay nit ba noppi dem di ànd ak ñoom ci kaw ne boo àndeek ñoom ci njub nga nekk da ngay xam njub bu ko defee ku ci nekk nga xam ne sa àndandoo la mais doo ut ay àndandoo ci ne ànd ak ñoom dalay teg ci njub mooy kon xameel nit ñi ci dëgg mais bul xamee dëgg ci nit ñi loolu moo gën a mucc moo tax kon yàlla wax ne nang ñu teg ci yoonu njub nga xam yoonu njub bi ba góorgóorlu ca léegi nag koo ca seen mu ne ca nga xam ne kon ku bokk ci ñi yàlla defal xéewal la kooku sa àndandoo la kon loolu daf ñuy dàqal par parloo day da day dàq par parloo ndax par parloo lu ci ëpp nit ki day féetale boppam ci kuréel jàpp ne kuréel googu lu fa féetati dëgg la du lijjanti dëgg ba xam ko ngir natt kuréel gi ndax kuréel gi ñu ngi ci dëgg googu am déet déedéet mais day jàpp ne moom ci kuréel sàngam la bokk léegi nag dëgg mu ngi koy nattee ci liwaa waa kuréel googu nekk loolu njuumte lu rëy la loolu yàlla dàq na ko ci suratul fatiha ñooñu nga xam ne moom ñoom la yàlla wax ci euh, siratul mustaqim dañoo boole ñaari xéewal yooyu xéewalu yàlla baaxee leen ñu xam njub mën a xam njub ak xéewalu bëgg a jëfe njub jariñu ci ñaari xéewal yooyu daje ci ñoom xam ak jëfe léegi mu tuddaat yeneen ñaari catégorie ci nit ñi yoo xamante ni benn bu ci nekk ci catégorie yooyu benn ci ñaari mbir yooyu moo nekk ci yow beneen newu ci loolu day amal quatrième catégorie boo xam ne yàlla tudd ko ndax soxlawu koo tudd mooy catégorie boo xam ne benn ci ñaar yooyu nekkul ci moom fatiha junj na ko waaye tudd ko moo tax ñu wax ne kon mboolem doomu aadama yépp ñu ngi ci ñetti catégorie yooyu yàlla tudd ndax quatrième bi mu ñàkk a tudd tudd na ko mooy junj na ko benn kuréel bi ci topp mooy ñi nga xamante ni bii bëgg a xam nekkul ci ñoom wala boog mën a xam nekkul ci ñoom bëgg a jëf mi ngi ci ñoom waaye mën a mën a mën a mën a xam newul ci ñoom bëgg nañoo jëf lu baax waaye ñoo xam lu baax pour jëfe ko ñooñ daal di sànku kon loolu lu muy tekki mooy nit ki ndakate léeg-léeg jubluwaay ak yéene bu rafet rek ci def lu baax doyul bu fekkente ni xam-xam bu sell lalu ko ndax wala taqfu ma laysa laka bihi ilm la yàlla wax yàlla daf laa wax ne la bul topp loo xam ne amaloo ko xam-xam xam-xam mooy loo xamante ni firnde bu leer na bu jóge ci yàlla xam-xam mooy loo xamante ni dafa dëppoog alxuraanu yàlla ji ak sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam da nga ci am firnde bu jóge ci yàlla ak yonentam léegi nag bu fekkee nit ki am na jubluwaay ci ne day góorgóorlu ci diine góorgóorlu ci lu baax comme lu bari ci nit ñi tey boo waxee ci wàllu yéene ak wàllu bëgg a def lu baax loolu moom macha allah am nañ yéene bi am nañ bëgg-bëgg bi mais léeg-léeg xam-xam bu leer bi leen di dikkal di jóge ci yàlla yeneen yonentam moo fi dul nekk bu ko defee nit ki imaam moom muy kër kër ba sànq boppam wala dajeeg benn waay kooko sànq ko ka koy sànq kenn la ci ñaari nit koo xamante ni bii xëy na xam na lu baax waaye xamal ko waa jooja du nekk njëriñam bu ko xamalee waa jooja du ko mën a exploité ni mu ko war a exploiter dëgg mu daal koy teg ci yoonu réer nuru ko ci wala kam yi dem ci moom kooku ci boppam daanaka la mu ko tanee ci xam njub bariwul ñoom ñaar ñu àndandoo continuer nekk ci loo xamante ni du njub nit ki nekk di kër kër yi di sonn lool yaakaar ne ci li mu nekk lu baax la fekk ne la mu nekk sori na lool njub li nga xam ne moom la ko yàlla toppaloo loolu nit ku nekk war nga ko moytandiku nit ku nekk war nga moytandiku sa diine yépp yaa ngi ko def ci affaire sentiment ak bëgg naa bëgg naa lu baax yaakaar naa ne lii lu baax la fekk ne ni nga war a jàngee sa diine dëgg dëgg dëgg am ci basira qul hadihi sabili adoo ila allahi ala basiratin qul hadihi sabili ala basira maanaam yàlla dafa ko yonente bi alayhi salatu ne ko sama yoon mi ngi nii ci kaw leer la tegu man ak képp ku ma topp ci kaw lu leer naññi la ñuy tegu ci basira lañ tegu wala man ak képp ku ma topp ci kaw leer la ñuy woote ci kaw lu leer naññi la ñuy woote woote ci loo xam ne ay làmbatu la wala ay toppandoo la ah woote wuñ ci lu mel noonu ci li ñuy woote ci xam-xam bu leer na bu nit ki mën a jàng xam ko xam ne lii la yonent bi alayhi salatu wasallam wax lii la jàngale kon loolu la nit ki war a góorgóorlu ne ci balaa muy bokk ci catégorie yooyu ñoo ñu yàlla di tudd ci suratul fatiha melal leen melakaanu dalal muy dañoo réer beneen kuréel gi ci des mooy ñu nga xamante ni mën a xam mi ngi ci ñoom waaye bëgg a jëf coobaree jëf newul ci ñoom mën nañoo xam ba xam lu baax waaye góor góorluwuñ ginnaaw bi am yéene ak pasteef ci jëfe lu baax loolu mu jariñ leen ñooñu loolu waral merub yàlla nekk ci ñoom ndax ay nit lañ yoo xam ne yàlla daleen di jox xam-xam boo xam ne war nañ cee mën a jariñu jariñ ci nit ñi ba noppi ñu jël ko jëmale ko ci yeneen mbir ak yeneen jubluwaay yoo xam ne loola taxul woon yàlla jox leen xam-xam ba ci exploité nit ñi nax leen ci jariñoo doomu aadama yi ci réeral nit ñi ci sànkute ndaxte loolu xëy na nit ki dafa dëppoo ak bànneexu bakkanam yàlla ñooñu ne ñooñu merub yàlla moo nekk ci ñoom beneen catégorie bi te ñooñu ci mën nga wax ne ñoo yàq àdduna ndax àdduna bi tey li ko yàq ci problème yi fi nekk yépp mooy nit ñi nga xamante ne yàlla jox na leen science ñu xam ko surtout ñi nga xam ne ñoom la yàlla jondi ci ñoom ay yonent lu jiitu jox leen yenn xam-xam yi ñu jàng ko ba teel a yeewu teel a muus njëkk sax yeewu lu bari ci xeet yi jëfandikoo loolu ci loo xamante ni seen i bëgg-bëggi la daal di safaanu li nga xam ne moom la leen yàlla santoon ñu nekk ci di exploiter doomu aadama yi di manipuler manipulation boobu ba léegi moom la àdduna bi di dund te ñi ko jiite mooy ñooñu yàlla wax ne gayril maghdubi alayhim mooy ñi nga xamante ni bi yàlla merub yàlla dafa nekk ci ñoom merub yàlla boobu li waral mooy xam-xam bi mi ngi fi mën xam bi mi ngi fi waaye pastef pour jëfe moo fi nekkul ndax yàqute gi nekk ci nit ki ak bànneex ak bëgg-bëgg bakkan yi nga xam ne nit ki ndax bëgg-bëgg bakkan yooyu dafay dem ba not nit ki ba àgg foo xam ne même bu xamee lu baax xam dëgg du ko def ndax jëfe dëgg boobu wala bàyyi nit ñi ñu jëfe dëgg boobu dafay safaanoo ay intérêt dafay nekk luy menacer ay intérêt moo tax bari na tey lu yàq àdduna ci dëkk yu bari loolu moom moo ko yàq mooy nit koo xamante ni xam na ni bu dëgg jëmee kaw ba nit ñi xam ko jëfe ko ne ca moom ay intérêt dafay yàqu léeg-léeg ñooñu ñooy faral di gën a gàllankoor ñi nga xam ne seen xam-xam di dox seen diggante dëgg ndax ñoo leen di ragalloo dëgg wala di leen wan ay mbir yoo xam ne ci turu dëgg lañ leen koy wan ba nit ñu topp yooyu ndekete dëgg newu ca beneen quatrième catégorie bi mooy ñi nga xamante ni bii mën a xam newul ci ñoom bëgg a jëf newul ci ñoom ñooñu ñooy ñi gën a yées ci doomu aadama yi mooy koo xamante ni mënut a xam mbaax waaye bu ko xamoon sax daa parewul pour jëfe ko ñooñu moom jaruñu sax tudd jaruñu sax wax ndax ñooñu ñooy ñi gën a yées ci mbindeefi doomu aadama yi yàlla nañu yàlla musal ci loolu kon suratul fatiha mi ngi noonu nekk saar boo xamante ni boo xoolee ne ko suñu borom subhanahu wa taala tudde tëralee dafa doy waar lool ndax dafa tàmbalee wax ci yàlla mi nga xam ne ci moom la lépp tàmbalee wax ci li mu sàkk mat gi mu ko sàkk ak jubluwaay yu kawe yi nga xam ne moo tax mu sàkk ko loolu moo tax mu melal boppam alhamd muy cant ci ne ay caaxaan taxul mu def ko li mu def tamit ak mata di newu ci lépp lu mat la subhanahu wa taala nit ñi ñooy ñëw kay nekk ci kaw suuf di yàq ak a caxat caxatee dund bi ci kaw suuf li fi yàlla defoon yépp ñu ñu koy commencé di ci dugal suñu loxo di yàqu ci zaharal fasaadu fil barri wal bahri bi yàlla waxoon lu baax rek moo fi nekk ci liñ fi yàlla defal ci lu ñu mën a jariñoo mais doomu aadama yi utilisation bi ñu koy utiliser exploitation bu bon bi ñuy exploité adduna bi loolu moom moo fi indi yàqute bi fi nekk yépp mu indi ay loraange yu baree bëri ci doomu aadama yi ci seen dund ci seen nekkin ci côté boo ko natt rek am na ci loo xam ne tayeef la am na ci loo xamante ne ñàkk xam la mais loolu rek boo ci taxawoon tey mën nga cee wax lu baree baree baree baree bare bi yàlla waxee loolu wax tamit ci suñu nekk fii mujjuwaayam fan la mooy ëllëg yàlla dañ taxawal taxawal suñu kanamu responsabilité ndax xel yi ñu yàlla jox gënale gi ñu yàlla gënale ci mbindee fii ak lim ñu fi defal lépp dafa ko ngir nen daf ko def ngir jubluwaay yu kawe ngir ñu tegu ci njub tegu ci mbaax bu ëllëgee bu ñu ñëwee kenn ku nekk mu ne la li nga defoon daal di la koy fay kon loolu moo tax bi tuddee ñaari mbir yi daal di wax li nekk ci digg bi li koy defar ak li koy yëwanal mooy taxaw ci jaamu yàlla te dimbali ko yàlla subhanahu wa taala tënku ci loolu nekkul yàlla ay jaamu ginnaaw loolu mu xamal la ne la tamit li nit ñi di nekk di kër kër yépp lenn rek moo ci baax mooy yoonu yàlla bu jub bi nga jéem a fexe teg foofu sa tànk soo ko defulee ci leneen loo nekk xamal ne yaa ngi ci réer yaa ngi ci sànku yaa ngi ci pertaange te nit ñi li ñu nekk lépp génnul ñetti mbir wala ñeenti mbir xam lu baax ne ca wala xam lu baax ne ca safaan ba wala bëgg lu baax waaye teguwuloo ci yoon way tax nga xam ko bu ko defee nga daal di sànku wala koo xamante ni bii mënta xam lu baax te parewul pour jëfe lu baax bu ko defee loolu mooy kurelu doomu aadama yi benn doomu aadama génn ko li nga xamante bi mooy suratul fatiha kon wax na ci yàlla mooy kan wax ci àq yàlla ci jàmm nga xamante ni moo tax mu sàkk leen wax tamit ci àdduna bi ak amam ak lan moo ko amal ak lan moo tax yàlla amal ko wax ci nit ñi seenu dund ak ëllëg fan la ñuy jëm loolu nga gis ne kon saar la boo xam ne lépp lu nekkaat ci alquran génnul loolu moo tax ñu tuddee ko ummul ummul kitaab ñu tuddee ko ummul quran moom suratul fatiha ci boppam ndax dafa ëmb lépp léppi alquran yi dañuy rek tënk ndax xëy na mu gën a nekk lu pédagogique lenn ci ay njëriñ yi nga xam ne mën nañ koo jëlee ci saar bi li ci njëkk mooy yàlla subhanahu wa taala téeréem bi di alquran nu mu xereñee ci jiital bi yàlla jiital ak saar soo xam ne guddul ndax saar yi topp ci moom mooy li ñu tuddee astabu wa tiwaal mooy saar yi nga xamante ne dafa gudd lool rawatina bu dee da ngaa boole anfaal ak tawba waaye saar bi leen jiitu ñu tuddee ko fatihatul kitab moom saar bu tënk la boo xam juróom-ñaari aaya la mais suñu borom da cee résumé lépp lu nekk ci alquran mel na comme yow mi jàng alquran yàlla dalay préparé ci li nekk ci al alquran ci xam-xam yépp yàlla dëxañal la ko ci benn saar boo xam ne sept versets la mu tënkal la ci xam boobu yépp loolu kon luy wane xereñu alquran la loolu mooy li mu bokkaat ci yiñ ci jàngee ba léegi mooy taamu gu ñu taamu ak rafetlu gu ñu rafetlu ci nit ki lépp looy tàmbali nga koy tàmbaleeg tudd yàlla tàmbali koog turu yàlla mooy tàmbali kook tudd yàlla nit ki tàmm di di jiital tudd yàlla ci li muy def roy ci borom bi subhanahu wa taala ndax téeréem bi bi mu koy tàmbali da ko tàmbaleeg bismillahi rahmani rahim fatiha noonu lañ ko tàmbalee bismillahi rahmani rahim maanaa tudd yàlla comme niñ ko waxee woon du ne ci turu yàlla waaye ci tudd yàlla ndax bismu foofu li muy tekki mooy ak tasmiya muy tudd yàlla subhanahu wa ci la nit ki di tàmbalee mu bokkaat ci liñ ciy jàngatee ba léegi mooy yàlla subhanahu wa taala bi mu ñuy xamal boppam di ñu xamal fu mu toll ak dayoom ci sàkk gi mu sàkk jaam ñi da cee teg yërmande melokaanu yërmande daanaka moom la yàlla gën a feeñal ci saar bi nga gis ne kon loolu la jiital moo ne yërmande yàlla moo jiitu meram moo tax kon képp koo xam ne da ngay waaraate wala ngay jàngale diine war nga di bàyyi xel bu baax a baax di di yaakaarloo nit ñi ak di leen bégal ci li nga xam ne mooy yërmande yàlla subhanahu wa taala ñu ko tuddee ak tabshir li yonente bi alayhi salatu wasalam waxoon muad ak abu musa al ashari radiallahu anhuma bi mu leen yebale yaman def na leen bashira wala wa yassira wala tuassira wa tatawaa wala taxtalifa daf leen waxoon ne leen na ngeen di bégal jaam ñi te bañ di leen xupp xupp ku leen di dàq ci diine bu leen dàq nit ñi dee leen leen di dee leen yombal di jàppandal te bañ di jafeel ngeen di diisoo bay ànd ci li ngeen di def te bañ di wuute loolu la leen joxoon comme ay orientation alayhi salaatu wassalaam mu bokk ci tamit ba léegi ci ne képp koo xam ne nangul nga yàlla nekk gi mu nekk boroom di buur ne moom yàlla subhanahu wa moo yilif jaam ñi yilif seen lépp nga nangu loolu nangu tamit mat gi mu mat ci jëmmam muy alhamdulilahi rabbil alamin ci ne lépp lu yàlla def lu mat la dara mat a diw ci mat na ci jëmmam mat ci ay jëfam ba nga ne alhamdulillah nga nangu loolu war nga ko nangul tamit iyyaka na'budu mooy ne moom rek lañ war a jaamu moom rek moo am yelleef ak sañ-sañ ñu ñu jaamu ko ndax yàlla bi mu waxee alhamdulilahi rabbil alamin bi mu ci tegee arrahmaani rahim maliki yawmi din dafa ñëw ci iyyaka na'budu la ci teg kon bu boobaa nit ki bu nangoo alhamdulilahi bi nangu rabbil alamina ji war na tamit góorgóorlu ci iyyaka na'budu muy ci jaamu yàlla subhanahu wa taala ndax moom rek moo am sañ ñu jaamu ko subhanahu wa taala beneen bi ñu ci jàngee itam ba léegi mooy yaatu yërmande yàlla subhanahu wa taala ci ne moom ci kaw yërmande rek lay jëflanteeg ay jaamam wa rabbuka algafuru du rahma law yuaxiduhum bima kasabu la ajjala lahum alazab yàlla mooy ki melowoo melokaanu yërmande ak melokaanu njëggale bu fekkonte ni day jàppe jaam ñi li ñuy def kon seen mbugal du leen ko xaare ba ëllëg waaye fii la leen di mbugalee ci àdduna kon yàlla subhanahu wa taala ku yaatu yërmande la ñu ciy jàngaatee ba léegi ci suratul fatiha ne yàlla subhanahu wa taala sàkkul jaam ñi ngir neen sàkku leen ngir caaxaan adduna bi xereñ gi fi nekk ak science bi fi nekk lu ci nit ki di gën a sori loolu war a gën a nekk firnde ci moom ci ne lii am na jubluwaay bu màgg bu tax mu ne fi malheureusement tey science dañ ko tabax ci weddi yàlla ci nature la ci évolution la ci tañax tañaxi la boo xam ne dara nekkul ci ginnaaw loolu xel mu baax xel mu jub mënta nangu loolu ndax xereñ gi nekk ci àdduna bi ba doomu aadama yi mënuñoo peeg dëgg dëgg dëgg li fi nekk ak univers bi ni mu tëddee ak planète yi fi nekk ak ni ñuy doxee ak ni ñuy fonctionner ngir nit ñi comprendre loolu sax dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mënul nekk ba pare nga ni loolu yépp dafa jékki-jékki rek am noonu dara amalu ko dara taxu koo am loolu ku am xel mu normal xel mu wér du mës xalaat loolu kon am na jubluwaay bu tax suñu borom subhanahu wa taala ko moo tax mu ne woon alhamdulilahi rabbil alamin dal di ciy teg maliki yow middin ginnaaw ba itam lépp loo xam ne jaam bi am na ko ci li ñuy jàngee ci fatiha ci ngëneel na ko sante yàlla subhanahu wa taala ndax yàlla moo ñu defal lépp ndax bu ne alhamdulillah soog ci teg rabbil alamin mooy ne kon lépp moom la subhanahu wa taala bokkaat na ci itam nit ki bu fekkee am na xéewal gi gën a màgg ci xéewal yi te mooy xéewalu njub xéewalu mbaax na ko sante yàlla ndax yàlla rek moo mën a taxawu jaam bi ba mu mën a tegu ci njub wa illaa dafay sànku loolu tamit nit ki ba léegi di ci déggee itam ne képp ku yàlla baaxee njub baaxee na la mooy ne nit ki loo mën a am ci àdduna te amuloo mbaax amuloo njub sa digganteeg sa borom mi ngi mel ne amuloo dara ndax loo fi dajale ci àdduna di nga dem bàyyi ko fi wala moom mu dem bàyyi la kon njub moom mooy xéewalu yàlla gi gën a màgg bu yàlla subhanahu wa taala defal jaamam yi mu bokkat ci ñu ciy jàngee ci suratul fatiha tamit ci niñ ko jàngatee mooy aajowoo bu jaam bi di aajowoo ndimbalu boromam ci lépp mooy wa iyyaka nasta'in ndimbalu sa borom ci xamal gi mu lay xamal lu baax ba nga mën koo ràññetle ak lu nga xamante ni mooy safaanu lu baax loolo ci yàlla la ko nit ki di soxla si nit yàlla la ko nit ki di jële yàlla moo tax mu yebal ñu yebal ci ñun ab yonent jox ko ab téere mu ñëw jàngal ñu lu baax loolu kon loolu yàlla jox te mënuñu ko woon xamal suñu bopp buñ ko doyee dal nañ góorgóorlu ci jàng ko yittewoo ko ndax ci loolu rek lañ mën a jële njub gi ñu jëmale suñu borom waaye tamit góorgóorlu kërti kërti wan yàlla ak dëggu ci suñu xol gu tax mu jox ñu njub saxal ci njub sàmmal ñu boppam ba du ñu sànku loolu tamit kenn ku nekk suñu war na cee góorlu ndax yàlla rek moo mën a teete jaam bi ba mu mën a sax ci njub nekk ci njub ñi ciy jàngee tamit ci saar bi ci ba léegi wóoradi goo xamante ni wóoradi na ko nit ki di xam ba noppi bañ a jëfe ñi nga xamante ni dañoo xam mën a xam lu baax ba noppi ko jël xam-xam ba jëmale ko ci seen i bëgg-bëggi bànneex seen i bëgg-bëggi bakkan jëmale ko ci yooyu jëmale ko ci nax nit ñi waaye jëluñu ko jëfe ko jëf ju baax joo xam ne moo leen di jegal seen borom ndax ñooñu merum yàlla mi ngi ci ñoom te melokaan la boo xam nit ku nekk war na ko ragal nit ku nekk war na ko moytandiku mooy di xam ba noppi bañ di jëfe léeg-léeg ñooñu ñooy faral di gàllankoor lu baax ñooy faral di gàllankoor njub te loolu melokaan la bu feeñ loolu ci yahud yi moo tax boo gisee njub ak mbaax ci àdduna bi ñu ko gën a xeex gën ko gàllankoor ñoom la waaye tamit beneen melokaan bi ci toppaat muy ñàkk xam ba noppi di jëfe loolu tamit lu doy waar la nga xam ne ci nasaraan yi loolu moo gën a feeñ ci ñoom mooy demee xër ak ne da ngaa bëgg lu baax ak di rey sa bopp ci ne da ngay jaamu yàlla ba mu jaral la sax ngay bàyyi àdduna ne doo jël soxna da ngay labbewu dem nekk ci àll ba bu njëkkaan dañ daan dem nekk ci àll ba bàyyi lépp loo xam ne àdduna la nekk fa rek ne dañuy jaamu yàlla waaye loolu bu fekkee teguwul ci xam-xam dañ lay daal di manipuler seytaane fowe la dugal la ci réer nga nekk ci sànkute moo tax kon jëfe timit li nga bëgg a jëfe ci lu baax te tegoo ko ci xam-xam yàqute rek lay jur comme na ko omar ibn abdul aziz waxee ne man amila bila ilmin kaana ma yufsidu akthar mimma yuslih koo xam ne da ngay jëf te li ngay def tegloo ko ci xam-xam li ngay yàq moo ëpp li ngay defar kon yittewoo jàng diine te jàngee ko foo xamante ni fu wóor la ci ne lii fi nit ki di jëlee xam-xam bu wér la bu sukkandiku ci téere yàlla bi ak sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam ndax al ilmu qaala allahu qaala rasuluhu qaala sahabatu laysa bi tamwihi xam-xam ci delluwaay yooyu lañ koy jëlee loolu kon mooy lenn ci ay njariñ yoo xamante ni mën nañ koo tudd ci saar bi nga xamante ni mooy suratul fatiha لنان برم سبحانه وتعالى دفلني توفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله سانتر دار السلام دي ينغتو تي ميدسين إسلاميك أك بوتراديسيونيل نيولن دون باخي سين إميسيون سيتلو القرآن ما دي القرآن جزاك يودغنان فمن يوهد إباوان كما سيلو جسلمان lammoy ki ma wax maa gën ci lun ma sa wax sama lépp na duma la xam leen ne may Qur'an